jël sa taati jëkkër lu nekk nga def ko si pour pour rendre ko doole fekk yaa koy. rendre ah, faible que bagage yooyu ñuy collectionné yëpp bu guddee ñu jël ko def ko say taay. non jabatam boo ko takkee am ko sa kër par force da la war parce que loolu moom mooy yoon. mooy yàq doomu yaay mooy defar doom gis nga nañ bàyyi tàppale yi jigéen ñi sëyoon te yàlla rek tax quel que soit fi ñu xuus jàll. ce qu'il faut comprendre te jigéen ngeen comprendre ba noppalu benn yoon une bonne fois pour toutes mooy que ni l'homme est naturellement infidèle xam nga dafa am sëy dafa am concept xam nga la mooy concept sëy dinaa fi jur loo xam ne bu ëllëgee ñëpp dinañ xam ne sëy ko fi moo concept bi tey xam nga la mooy concept sëy dinaa fexe ba ko sama jëkkër dajee daj bu ba bu ayee si man

lu ne dina fa am na si tey góor ñoo xam ne bu ñu la bu ñu la nëbbul rek ni ñuy yeewoo ñoom day dem sax ba dañuy mel sax ay doom ay poupée tellement que lu ne dinañ leen ko tàkkal lu ne dinañ leen ko di. ko xam lool. <laughs> léegi yow dama lay laaj loolu ndax dund la wala wala dund bu neex. xam nga jonge boobu ngeen créé non non non non non c'est-à-dire xam nga xam nga li ñu tuddee jonge tey mais mooy scandale bi scandale dëgg dëgg dëgg bi mooy jonge boobu ñuy xëccoo xëccoo wuñu naa naa fi am doom ju baax xam nga jigéen ñi lan la ñuy xëccoo. dinaa fi gën a jonge c'est le scandale. parce que góor ñi yow ah. loo xam. lu ma xam. dinaa fi gën doom bu baax si ñooñu la ah, ah, ko. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah su ma jur doom doom ju baax. non non laaj ko ndax. non si xam nga moom la xam nga ci sëyagul sax. waaw mais la demal. Ah, demal demal nga xool koo xam ne mu ngi si sëy. nga laaj ko rek nga bett ko ne ko lan mooy jonge jigéen bu la waxee brusquement doom ju baax rek. lu ma la wax si je suis pas d'accord avec toi. xam nga lu mu lay wax. billah bu la si nëbbul. Ah, xam nga lan la lay wax. en commençant da ah. ay ay takkaay en commençant da ay ay ay ay ah, xam nga li leen di wax seen jonge yi ñuy émission jonge yi ngay gis yëpp lan la ñuy présenté. Mm. est-ce que mas ngaa gis ñu présenté. ñu présenté tey loo xam ne sincèrement mën nañ si teg loxo. mais li ñuy présenté yëpp ay sër lay nekk. ay ay comprimé ay ay pastilles ay ay café ay chocolat. mais amul la euh, débat bi neex na trop. Ah. Euh, suñu foog naa am wax na loo fi am solo Zeyna tamit n'empêche que amoo amoo amoo amoo jëkkër ak kii di Fat Bintou. mais ah. waxtaan ji am na solo am. ci ah, waxtaan bi aussi que lu ñuy wax ni euh, du du loo xamante ni lu am la. parce que ñun tamit lu ñu wax tamit am na même su fekkente ni dunduñ ko. parce que nit il n'est pas dit que yow li nga dund rek. ci moom nga mën a wax moom nga mën a waxtaanee. absolument et puis et puis et puis ça c'est-à-dire thème bi de de manière générale boo ko jëlee on a parlé de l'amour quoi. Mm-hmm. bon mbëggeel moom ñu sëy rek ñoo ko. voilà ñun ñi nga xamante ni ñun voilà. bien vrai que ni bon. non mais mais nag mais nag loolu si mbedd mi la yema ah, après da ngay gunge soxna si mu dugg nga ñeeku. waaw boobu nag la foofu sëy sax. waaw daam am na moo ah, parce que temps xam nga sànq dafa am benn wax joo xam te nga tàggatu waaw waaw waaw dafa am dafa am solo trop. Mm-hmm. parce que xam nga tey góor en général nu këram mel ci moom la. parfois ñuy wax jigéen ñi jigéen mais parfois góor ñu nu këram ci moom la parce que tey yow mi nga xamante ni yaa sa jabar andi ko sa kër parce que mi ngi ki nga abal bët fu la neex la mm-hmm. mais ñi parfois dañuy takk ñaari jabar dañuy takk ñaari jabar non jabar moom boo ko andi ko sa kër par force dala war a déggal parce que loolu moom mooy yoon te gis nga dafa am lu dangereux loo gis nga jéng moom góor gu koy def. yaa ngi def lu dangereux. da lay topp pour tàggatoo rek non da lay ba yow mën xiyam. parce que jéng baaxul. foofu daal laay jaaree bon comme temps bi dañoo ko foofu laay di am mbégte bu baax a baax. waaw boo ko boo ko tey ci ci ci plateau bi. di leen jox di leen remercier Amara aussi tamit ñoom Olifa ñoom Fatou Bintou déem ak grand am ak euh, Zeyna di jox di jaay ba benn incha allah moom mooy suñu expert non man moom li may tëjee mooy gars yi nañu dund naturellement. Mm-hmm. te may lancer benn message solennellement jëmale ko si képp kuy góor nañu moytu tout ce qui est artificiel. tout ce artificiel même l'impuissance bi man damay wax ne li ko posé tey mais yooyu rek la jël sa taati jëkkër lu nekk nga def ko si. pour pour rendre ko doole fekk yaa ngi koy. rendre ah, faiblesse non non non mais nañu waxante dëgg rek. parce que bagage yooyu ñuy collectionné yëpp bu guddee ñu jël ko def ko say bari léegi yow tu crois que ñu lay defar fekk ñu lay jaar day dem ba finalement loolu. sans loolu doo dem. non ah? Ah, kon man message la bu may lancer daal parce que dama si gis ay cas yu bari ay cas yoo xam ne xolal ñu ngi si diggante nekkatuñu sax góor. te nga leen ko teg ci wàllu xam nga loolu ku nekk xam na ne pasti bu bari tey baaxul si góor mais pasti boo xam ne brut man je vis pas une past boo xam ne gis naa benn pepp bu toll nii billaahi boo ko defoon si braade bi dina ko naan mais pepp kasi euh, boobu nan nga ko mun a jëlee def ko si kanamu góor mais mu bëgg a résister pendant deux ans trois ans quatre ans mais day day dem ba day dem ba yomb parce que pasti même bu ñu koy naan ñun góor ñi sax san ba ba baaxul day day day indi impuissance léegi nag yamatuñ si naan ko dañ koy jël dugal ko sa sa grave non mais loolu c'est du n'importe quoi grave comprendre ma passé bi nag mais xam naa dañ koy dañ koy waxtaanee après. parce que non xam naa loolu dina si def benn dem voilà voilà. Euh, am man ah, damay faj ko moom moom laa fay am di jaajëfal benn télé yow rek. waaw waaw mbokk yi gars yi ñoo di sëgg di ree ndax lu fi grand am wax mais je vois que ne eh, bu tamit quelque part dégg la parce que ñun comme que ñun. ba léegi duggaguñ ci xamuñ ci dara. ah ba pare nga koy dëgg. non mais si parce que moom moo gën a dund. éviter donc man su ma demee bay dugg négocier man naa éviter parce que naa parce que xaw ma lu bëgg a foofu naa parce que xaw ma lu bëgg a foofu. naa ko éviter mais bu dina teg dara boobu.